may xaar walaay walaay kan lay xaar walaay walaay fekkee xaar walaay walaay lan lay xaar walaay walaay demoon naa bay am lu ma neex demoon naa bay seeti yeneen demoon naa si jeex na waruma dëkk li dem sama xol la ndam na mooy ma daal may dundee yaaka tey laa ne ma si jeex na soxna si ma sa coono waruma dëkk li dem oo ma seeti ba neex wax leen ma ko fa la ne bi ñu la fi jànku out of true my mom. My never one land asalaamaaleykum mbokk téléspectateur bu Ladoum TV euh, ñu ñëw fii si Tivaouane Arafat euh, fekk si fi un grand champion bergerie seex si Mouhamadou Mansour si bu ñu ko waxee xel yëpp day dem ci sàmba Seye euh, xam naa ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ñu sekk ak moom waxtaan ci seen émission fi ma jaar salaamaaleykum Samba. waaleykum salaam. ñu ñëw fii tey Ladoum TV seet si la ci émission bi nga xam ne mooy émission fi ma jaar fas yéene waxtaan ak yow ci ci fi ma jaar. Euh, Samba est-ce lan nga ñu mën a wax euh, ci parcours Samba Seye ci élevage. parcours ci élevage. man hmm. léegi. Hmm. yàgg na. Hmm. yàlla dogal na maa ngi maa ngi dugg 2013. 2013. ci élevage. laa doon. élevage nag laa doon def. ñun mm. xar yi ma njëkk a yor mm. bi ma njëkk a yor ñu mm. njëkk jaay xar mooy moom Mamadou Ndiaye bu sëñ Mansour dëkk waaw ñu ko jaay xar laa daf jógee foofu day jaay moom jaay moom dégg nga ni da nga ci élevage bi ay nag ñëw dugg ci élevage laadum euh, lan moo waral choix boobu nga porté ci bàyyi jóge ci élevage nag yi ñëw dugg ci élevage laadum bi ak lan nga gis ci élevage laadum ba tax euh, nga dugg nga jël choix élevage laadum hmm. bi ñaar yëpp laa boole hmm. ñaar yëpp laa boole hmm. mais nag nag maa ngi fi xar maa ngi fi xar yi dafa gën a siiw nag te it xar yi moo gën a nekk moo gën a noonu moom yaa ngi raay Mm. yaa ngi fan yi mm. bu mbëkkee wala yi bu mbëkkee bëriwul mm. bokkuloon nag nag moom ñu bëri ñu wuñ mais ñaar yëpp laa boole mais ñoom ñaar ñaari élevage yooyu nan nga ko mën a boole élevage nag bi ak élevage laadum bi ak ban moo ci gën a méttee dundal ñoom nag bi moo gën a moo gën a a métti ndax nag moom biram na li dundal métti na li lekk bari waaw laadum moom ñoo yor seen bopp dañu gis ni léegi presque éleveurs yëpp mun naa ne éleveurs yi ñu doon élever ay nag ak ay béy ñëpp léegi dañoo daw euh, porté ci élevage bi laa doon euh, lan moo waral loolu. xew-xew la bëgg-bëgg ak xew-xew ak lu xew si jamono. Hmm. lu yàlla indi ci jamono la mu xew. Hmm. te itam adduna. Hmm. yàlla moom mooy seet saa yu ko neexalam koy programme. ndax bu njëkk da nga doomu bàyyi jiw ma ngi def sàngam sa doomu daje wala sa papa na nga foofu ak ñoom léegi loolu dem na ba jeex pareetul mais yàlla roof xar ci xel doomu aadama yi roof leen ko xoolu doomu aadama yi ñëpp bëgg ko ñépp bëgg ko bëgg bëgg bëgg di ànd jokk mbokk mm-hmm. yàlla jaar la bi fi xar Mhm. Eh, macha allah loolu loolu am na solo eh, ba tey rek dañuy des dañuy des foofu parce que ñu bëri dañu dugg euh, porté wu ci élevage laa dund euh, yow en tant que en tant que Samba Seye mhm. est-ce que mën nañ xam lan moo la dugal ci élevage laa dund ndax xaalis bi la ñu wala amour bi moo dugal ci élevage laa dund ak jaamu yàlla jaamu hmm. ay mbi ay suñu borom la hmm. mënuñu wax hmm. yàlla téye seen lamiñ mm-hmm. nga di leen xont mm-hmm. di leen sang di leen toppatoo mm-hmm. yàlla dina ci bindal yiw dina ci bindal tuyaaba ma ku ko yor def ko sa bëgg-bëgg jaamu ci yàlla yàlla na ci fay yàlla na fay ci jaamu googu ndax ñu mënuñu wax waaye xam nañ ku leen yërëm xam na ku leen di toppatoo xam nañ ku leen dul toppatoo dëgg la jaamu yàlla man jaamu yàlla gi moom ci gën a intéressé loolu loolu am na solo waaye dañuy gis ni comme li may wax damay desaat ko léegi parce que ñu bëri soo waxee rek soo leen laajee même même kii lañ lay wax ñu bëri naan la amour bi la bëgg-bëgg bi la est du xaalis bi xaalis bi tamit moo ah, solo ah, xaalis am na si mhm. xaalis am na si est ëpp solo sax est ëpp ci solo bon am bon xaalis am na si parce que itam mhm. bu dul xaalis doo dem bu mhm. si xaalis amul doo dem mas dara mm-hmm. di jaay mm-hmm. am dara mm-hmm. di leen dundal di yàlla mais na ba léegi rek ñu des foofu foofu moom xam naa ne dañ fa gaaw a génn ndax euh, mun nañ ne mala yëpp ay mala lañ xar xar lañ mais si biir xar yi dañuy gis ni tànn xar yoo xam ne dañ leen di ber tey am na xar yoo xam ne ay xaru turabiir yaa ngi xaru xaru xaru xaru yeneen xaru pël pël yaa te moo tax jëluñu maanaam xar yooyu di leen dundal comme jaam yàlla mais pourquoi rek ñu porté wu ci élevage laadum lu tax ñu ber leen mm-hmm. dañ na laadum mm-hmm. na pël-pël mm-hmm. te laadum tuwaan naa laadum mooy gën rafet mooy gën a rëy mooy gën a itam dañ na affaire bu laadum élevage bu affaire lu noobal la laadum dafa noobal boo jógee yar xar mm-hmm. di mm-hmm. a a rafet boo jógee fooy jëm daal mën nañ ni en dehors en dehors euh, maanaam xaalis beeg mën nañ ni maanaam laadum décor la ci sax ci àdduna xëy na mm-hmm. ci àdduna mën nañ ko ba ne ci kër sax day xat naan ci àdduna léegi ndax mu doon nuyu dëkk boo fëgg fekk fay laadum fekk fa ay kon yaakaar naa yaatu na mhm. ci àdduna bi mhm. ñëpp ngi fi ne mhm. ñëpp ngi ci nekk lu waaye nag lu baax la daal baax la lu baax euh, euh, ma ma macha allah euh, comme li may wax rek ñu ñëw fii si kër gi fekk lan moo wax lan moo tax maanaam ñu gis ne Tivaouane nekk na dëkk boo xam ne am na espace lan moo tax nga jël maanaam xar yi bàyyi leen ci kër gi. plutôt hmm. euh, par kër gi xar yi kat nañ hmm. ndax wax xaj nañ ko. leneen xaj nañ ko. àll bi. Hmm. mais xar yi. moom damaa taamu. nekk ak ñoom. daal xar yi da leen a beral beral loxo. fa lay fa lay <laughs> julee. <laughs> beneen loxo daal yenn saa yi fa yenn saa yi fa reer. <laughs> Eh, waaw loolu am na solo trop. Eh, ñu ñëwaat rek ba léegi ci eh, gis xaru laadu na seen dund cher na trop na est-ce que bi xar yi dundal bi ak xar yi ndax ah, ñoom daanaka ñooy dundal seen bopp. Mm-hmm. waaye nag ma damay bay baykat la maa ngi hmm. ci xarit ci tool yi laa jëm su ma jógee ci tool yi ci baykat la mais ah, daal mën nañ ne xarit lu ñuy dundee yow yow yaa fay bay waaw lu si ëpp damaa bay. Mhm. waaw sama man ci dañu gis ne éleveurs yu bari duñu faral di bay dañuy faral di jënd ngooñ bi est-ce que baylu bi ak maanaam moo ci gën a noppale <coughs> bay bi moo gën a noppale moo gën a la moo tax éleveurs ah, am na ci yoo xam yu bay moom. du ma yëpp am na yëpp am na am na ay ay éleveurs yu nekk ci yoo xam ne dañuy bay. Mhm. su mel ne mbay fal ci day bay. guumul te béykat bu mag grand kàkk gu mag la day bay waaw loolu loolu la am na solo ñu ngi daal ba léegi côté bergerie gis fi xar yoo xam ne xar yu allah xar rafet xar am solo est-ce que mën nañ xam maanaam xar yi ñaata nga ci def ba am bu yem bu dama ci def xaalis takkoon ñaata takku na takku na takku na parce que am na si yoo xam ne nag moom. Mm-hmm. Ah, dañ ñu ay ci xar. Mour mm-hmm. Ndiaye bi ma koy joxe ma ko jox ñaari terrain. xam naa ni barke moom mënut a weesu loolu. bon bi itam. Mm-hmm. bu jaay na ma benn xar benn femelle. léegi say jaay na ma ko fii en 2014. bi ma duggee 2013 2014. ma découvrir sëñ ma dem xamante ne moom mm-hmm. <coughs> ku di wax Papal Jaxeer mm-hmm. yàlla yàlla yërëm ko mm-hmm. ak Adama Cissé bu baax ñu bokk nekk ci koñ bi mu ànd ak moom moo ànd ak man yóbbu bi si VG ñu waxtaan ak VG mu jaay ma benn famel famel boobu laa njëkk jënd un million si VG ma boole kook ñaari famille yi moom mën njaay joxoon la départ nga départ euh, macha allah euh, ba léegi ci wàllu xam ndax dañu gis ni su ma juumul li nga fi tudd mu mel ni ay million la parce que euh, ak fu ngeen ngi ne ay millions nga fi jënd. Mhm. est-ce que actuellement fi mu toll nii parce que damay dégg ñuy wax ne euh, ce que loolu mën nañ cee am lu ñu ngi jaay xar parce que ku jëndee millions. Mhm. di dundal. Mhm. yaakaar ci dara. da ngay jaay mënoo jaay lu manqué ay ñu jaay ay millions moom. Mm-hmm. vraiment ngi jaay. ñu ngi jaay mm-hmm. ngi jaay ku am qualité quantité quantité bu baax. Mm-hmm. yoroon xar yu baax. jënd ko prix bu baax booy jaay da nga jaay prix bu baax. da daal mën nañu ni ci bergerie moom xaru million ñoo fi fi génne. waaw waaw. léegi parce que damay des parce que ku ne élevage xam ne léegi jeunes yi dañ koy jël hmm. jeunes yi mën a génne million jënd xar bariwul hmm. tey jeune éleveur bu ko ñëw sa bergerie yor cinq cent mille wala lu ko may manqué hmm. est-ce que jëlee xar bu liggéey ñu jàppale ko bu ñu jàppale ko ah, gars yi de da bëri soo waxee dañaa bu liggéey ñu jàppale te boo ñëwee bu ñu la waxee prix moom doo am sañ-sañu taxaw man boo dikkee ma jàppale la man boo yoree boo ñëwee <coughs> yor cinq cent mille bu dikkee waxtaan la loo wëral ne kii bëgg na dugg amul doole. Mm. day mm. mu dugg. élevage mm. bi lan tamit. ñu bëggoon xam ndax yow yaa ngi ci association waaw. ban association waaw macha allah yow est ce que mën nañ xam maanaam association lan lay indil éleveur biir élevage am biir bon association li mën a indil euh, élevage. bari na. parce que dañu am ñun président. nuyu ak président Assane Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko moo la war a njëkkee sax dëgg bi ñu am yombul président bu baax président bu oyof président bu mën a dimbale njaboot am na xew na mais si Sénégal man mën naa ne la ñun ñoo gën président ñun président bu ko fekkoon bu fekkoon muy tëdd di nelaw trois heures boo ko woo mu dëgg ay nelaw ñu wuy hmm. taw boo ko woowee mu xuus ci biir taw bi ñu fekk sa hmm. président mi noonu hmm. te duna mukk guddi na duna mukk naaj na duna mukk day taw duna mukk trois heures matin la amul ku ko mos a woo éleveur wuy foo ko woowee mu jël oto ñëw waaw jël oto mu ñëw ak wax wax nga wax li nga bëgg mu defal la la ko bëggee defal la lam defal la la nga loolu nee la <clears throat> yaakaar naa Sénégal ñu ngi gën président ndax président la waxoon du tànqam lu njabootam muy bëccëg muy naaj muy taw muy sedd foo ko soxlaa jot te président mel noonu moom la moom la njaboot bëgg te moom la ñuy yàlla seen moom la ñuy yàlla cëral moom yàlla cëral wax dëgg président bu baax la président bu gën ci président yi ñun moom la ñu am muy Tivaouane waaw. waaw loolu am na solo ba léegi dañuy waxtaan rek ci mm-hmm. élevage Tivaouane mm-hmm. actuellement fan lañ buñ doon classé maanaam élevage Tivaouane ci ci Sénégal mm-hmm. ban position lañ mën a jox élevage Tivaouane actuellement ban position ah Tivaouane bi ñu duggee si élevage yàggul waaye yaakaar naa Sénégal ñëpp xam nañ leen ndax xam naa ne bi ñu commencé ak léegi bi ñu génn mooy suñu troisième foire mais Sénégal ñëpp joxe nañ loxo ñëpp ne leen foire yi nga mos a foire yu mel noonu mosul am loolu lan moo koy maye loolu noonu maanaam mm, yàggoo ci élevage ba pare maanaam am si yenn tur yi. moo oh. koy maye. am kilifa bi ñu koy sos. dañoo mm-hmm. dem si sëñ Abdoul Aziz Al Amin. Mm-hmm. yal na yàlla yokk leeram. Mm-hmm. mu ne élevage dafa xew. mu ñaax ñi. élevage dafa xew. ñëpp xewal nañ ko. waaye nag lépp lu xew ci àdduna te araamul. doomu Tiwaawoon dugg si. fexele bu bu leen yées. bu leen yées. na ngeen fexe jël premier bi nga jël premier ñi naa jël mm-hmm. Mm-hmm. jàppale si wàllu ci côté yëpp mm-hmm. moom si Abdou Aziz waxoon ah wax dëgg yàlla nag lam ñu wax lépp def na ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk leeram wax dëgg yàlla euh, ba léegi ñu ñëw parce que comme ni may wax rek euh, te gis nañ ko xar yoo xam ne xar yu rafet lañ macha allah ay dënk ay maan yu rafet macha allah tey ku bëggoon ñëw fii ci bergerie bi su tànk bu mel ni muur borom bàcc mel ni Rane Diagne soxla woon xar mhm. tey fan la mën a jaar euh, ban adresse yan numéro la mën a jaar pour expliquer service waaw da mën mën jaar sax mën na jaar numéro téléphone numéro téléphone waaw numéro téléphone mën na woote 77 187 68 38 wala mu jël 364 95 52 am na Expresso 70 335 91 02 waaye damay gis ni comme li ma doon wax sànq rek gars yi moom joxe numéro moom hmm. yomb na leen trop waaye éleveur ñëw fi moom ñu wàññil ko hmm. éleveur ñëw fi muy tout tànk defal ko loo xam ne daal xéwal la hmm. gars yi ñi ngi naan ñi ngi naan jafe na de seen éleveur dañ koy casse mbaa bokkoo si ñoom <laughs> nga xam ne dañuy ubbi bunt yi waaye bu ñu la tëjee ci biir <laughs> déedéet déedéet vraiment non éleveur nag moom éleveur yi ñëpp a baax te ñuy jàppalante ñuy jàppalante bu baax ñun ñëpp a baax est-ce que éleveur yu mag yi ñu ngi jàppale dëgg-dëgg tout tànk yi waaw ñu ma si gisee ñu ma si xam mhm. ñu ngi jàppale tout tànk yi wax dëgg yàlla ñu jàppale tout gis naa si ñoo xam ne sax ñu am ay gis yoo xam ay tout tànk dem ci ñoom wóor mhm. bëgg nañ te amuñu mhm. ñu yëkkati xarmaay la ñu départ gis naa ko euh, daanaka sax ñu ngi ci cappaandaw émission bi euh, ban euh, message ngay lancé maanaam éleveurs yi nga xam ne moom nga seetal liggéey moom bon message bi ma leen lancé mooy <clears throat> ñu gën a gëm élevage gën jàpp élevage gën góor góorgóorlu ndax élevage tànki kanam la am amul tànki gannaaw te gëm naa ne kaw la jëm may jëmal suuf day gën a yéeg incha allah waaw loolu de am na solo kon xam naa ñëpp dellu ci bàyyi xel rek hmm. xam ni ginnaaw élevage tànk kanam la jëm moom lu jëm tànk kanam moom euh, ñëpp mat nañ cee bàyyi xel jàppaat ko seen euh, fukki loxo mm. xam naa dañ lay bàyyi rek euh, nga wax say kàddu yu mujj bu mm. ko defee rek ñu joxante dig daje yeneen émission ginnaaw wax ki nga xam ne cërale woon nañu ko daanaka fi ne mat na sëkk sax waaw wax na tam li ma mooy sant sant nañ leen bu baax di leen gërëm di sant sama waa kër sant sama aw sama ay soxna mm. di sant sama ay doom su ma fi nekk su ma fi nekkul <clears throat> ñoom ñoo ma gën a gëm xar yi mm-hmm. ñoom ñoo ma gën a bëgg xar yi mm-hmm. buñ xëyee suba buñ jullee ba pare mm-hmm. fajar la ñuy dem balee fi xar yi nekk ba mu set wecc lay ba mu set wecc raxas paan yi ba mu set wecc defal leen ndox defal leen mburu ñu naan defal ñu war defal leen ngoñ defal leen ngoñ muy jigéen ñi amul kii amul kaa ñëpp ku jug rek boo yeewoo boo julee pare moom ci xar yi nga jubal. kon daal ñëpp siy jàpp daal. waaw ñëpp siy jàpp waaw ñëpp siy jàpp moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñëpp siy jàpp waaw. Mm-hmm, macha yàlla. Mm-hmm. maa ngi leen bu baax. di leen gërëm. wax dëgg yàlla jàppale nañu ci biir. jàppale nañu ci biti. ndax élevage bu ku si nekk. ba am si yenn tur yi. ba mu dox yenn dox yi. sa njaboot la. dëgg ndax góor mënul lu wuti indi. mais ña bàyyi sa kër ga. ñi koy jàppale. di ko dimbale. ñooñu ñooñu. ñooy doxal élevage. dëgg wax dëgg yàlla. Mm-hmm. su ma fi nekkee su ma fi nekkul. Mm-hmm. nekkee sax. Mm-hmm. moom mën naa la du ma dem ci ñoom. ñoom ñooy ñooy bale. ñooy ñettafaaye. ñooy def lépp wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla ñooy xont sax. ñooy def lépp. wax dëgg yàlla. maa ngi leen di sant di leen gërëm. yàlla na yàlla gën leen a jàppale. yàlla na yàlla leen. si barke Mouhamed. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di santaat nag suñu président. Assane Ndiaye. président bu baax parsident bu gore parsident bu civilisé bu baax ku gore ku yëg ku xeebul kenn ku xeebul kenn xeebul kenn soxlaam yal na yàlla gën ko kàttana ci barke Mouhamed ku ko xaar yàlla na nga xaddi ci barke Mouhamed asen moom Tiwaawan Tiwaawan mënuñu ko fay mënuñu ko fay mënuñu ko fay ku baax la ku baax ku gore ku yëg mooy président Assane Ndiaye. dafa commencement bi nee naa la woon Sénégal. éleveurs yu bëri nañ. extension éleveurs yu bëri nañ. Mm, waaye yaakaar naa. li ma jëm li ma gëm. ñun ñoo fi gën président. ñoo fi gën ñoo fi gën président wax président boo xam ne fii du toog ñëpp. xëy suuba jëm soow. kenn ku ne da yor téléphone am diw noo fanaane diw noo yenn mbaa xare ñu problème. jël tànkam wala mu jël otoom ñëw seet si la. waxtaan ak yow kaf ak yow foog yow reeg yow. ba président yomb. dëgg la ba président yomb. xewul kenn yàlla yàlla kàttanal ko yàlla yàlla gën a ko li bëgg si élevage di ko yàlla na yàlla jox lu gën a kawe njortam si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo leen sant di leen gërëm incha allah bu beneen jërëjëf eh, jërëjëf eh, Samba Seye eh, mbokk téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon tey ci seen télévision Ladoum TV am doon seen émission fi ma ak Samba Seye bergerie Cheikh Seydi Mouhamed Mansour Sy fii ci Tivaouane Arafat xam naa di leen jox euh, dig daje rek seen yeneen émission ak yeneen i jotaay seen émission fi ma jaar seen télévision Ladoum TV jërë ngeen jëf ba beneen yoon.